asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saaku si yéen tey nag ku ne xam na ne ñu ngi ci mardi mu tombeek le 10 août 2021 li ñuy def mooy ñëw ak yéen ci yëglikaay yi dañ leen di bàyyi ngeen dem déglu yëglikaay yi liñ ñu xëy andil ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum mardi 10 août 2021 dañu ñëw ci yëglikaay suñu làmb la ne xëy doore ko yëglikaay bi tey fa mu xëy ñëw ci xëtamu njëkk fenn la maanaam dafa dikkati ci ndem ci yàlla si mbay géey wan ñu ko ci aw photom xam ne nii photo la woo xam ne jamono jooja mu nga ca làmb di bëree yëglikaay bi wan ñu ko foo xam ne ngemb na ba takk ay jaajam daal di taxaw mu mel ni ki nag waxtaan la woo xam ne yëglikaay bi xëy na ñu xam ne daal wu mu sequn la ak mbay géey jamono ji nga xam ne nii mu ngi ci àdduna di dund mbay géey nag wax fa histoire boo xam ne wala net li fa loo xam ne nii jafe na foo xam ne ni di nga fa dem fekk fa wax ju mel ni ki noonu ñëw na ci loo xam ne nii nag maanaam moo doon côté popularité maanaam daal na ko nit ña toppe woon ak na ko askan wi bëggee woon mel ni ki nag loola ñëw na ba leeral ca diggante mag benn marabu boo xam ne ca Mali la dëkkoon fekk moom moom Mbaye Guèye mu fekkoon ko fa nga xam ne moo doon seegu ca Mali yemu ja tamit ñëw na ci tamit loo xam ne Serigne Fallou da ko koo waxoon ci lu jëm ci wàllum la nga xam ne nii moo doon siwam googu ak popularité am googu moo tax Mbaye Guèye nag jàpp na woon maanaam daal wala wax na yëglikaay bi ci jamono jam doon waxtaan ak ñoom ne leen daal boo bëjëlee ka nga xam ne moo di Siteu wala ka nga xam ne nii moo di Modou Lo wala Balla Gaye na moom Mbaye Guèye na mu meloon ci jamono ne na ñooñu yegguñu foofa ci wàllum mbooloo mi leen toppoon akuk siwaay loolu mooy waxtaan woo xam ne seqoon na ko gi bi ki nga xam ne moo di Abdoulaye Dembélé tey indi laat ñu ko mel ni ki nag waxtaan la woo xam ne ni daal wuy yaatoo yaatoo yaatu la moom Mbaye Guèye daal dikk na ci lu baree baree baree bari ñëw na tamit ci combat yoo xam ne bëri na ko mel ni ki nag nee na bëri na lu toll ci soixante-dix à quatre-vingts combat yoo xam ne bëri na ko ci carrière am yëglikaay bi dikkal na ci lu mel ni ki noonu siiwam googa nag yeggoon na ci ba sax ñu baree baree bari daan jàpp ne mbay Guèye mi est-ce que nit la est-ce que sax nekkul jinne nee na daan nañ ko jiiñ lu mel ni ki noonu yëglikaay bi daal tey dikkaat na ci loo xam ne ni Mbaye Guèye moo ko waxoon ka nga xam ne nii nag moom moo nu indil wax ja moom moo di Iba Kane keneen koo xam ne nii Abdoulaye Dembélé moo ko indi ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb muy Gris Bordeaux ma nga xam ne ab la Gris nag moom la mu xëy xamle daal nee na daal diggante ak Mbaye Guèye na bu koy wax ay rongoñam day tuuru ndax na ne bis ba muy bëre ak Tyson ba bëri rak des ne kere mbay wax na ma wax boo xam ne ni daal wax la boo xam ne kere daal samay rongoñ sax presque génn nañ ndax nag da koo ko daal tey jii day soo bëggee rek ma dee ci lamb ji na nga fexee fexe ba Tyson daanu la ne na ko bu loolu amee daal mbay géy ne ko fii moom jàppal ne fi laay faatoo waaye nag lii tax ba loolu du am moom fexeel def la tout ba bés bi nga génn ci ak ndam ndax nag man xajuma ci gàcce te bu loolu amee xamatuma nu may nekk ci réew mi Gris Bordeaux mu xëy di net li lu mel ni ki noonu jàpp na ne tamit Mbaye Guèye nekkoon na koo xam ne ni ci moom daal maanaam ku ku gunge la ci biir carrière am ku ko jàppale la koo xam ne ni jegeñoon na ko koo xam ne ni daal façon jege koo xam ne Gris daal tey ñëw na ci waxtaan wu yaatoo yaatu woo xam ne mook Abdoulaye dembale ñoo ko seq jëmale ko ci ka nga xam ne moo doon dem ci yàlla sa di Mbaye Guèye yëglikaay bi dikkal nu tey ci lu mel ni ki noonu mel ni ki tey bu nu continuer ci yëglikaay bi ba tey dem ca biir a biir nag kan ñan fay fekk moo di waa làmb ji ministre Matar Ba dem demoon na fa demb mel ni ki nag demoon na jaale ji moom itam mook waa CNG ba bi nu ngi nuy ne daal jàppale na famille ba lu toll ci million de francs CFA ka nga xam ne nii moo di Bira Sène tamit mu nga fa woon Modou Lo tamit mu nga fa woon Big Pato nga fa woon Khadim Gadiaga mu nga fa woon ba ci guy gi bari na ñoo xam ne daal démb ci monde lamb demoon nan fa nga xam ne moo doon ca Fass Mbao wala boog ca Kër Mbaye Guèye demoon jaale ji moo tax Modou Lo moom di xëy xam leen daal bu bëggee dégg-dégg ci sunu lamb ne na Père Mbaye Guèye dong la woon ci lamb waaye tamit kenn la woon ci àddina maanaam daal unique la woon Modou Lo moom moo xëy la mu xëy le moom président rok énergie ba nee na Mbaye Guèye maanaam làmb bu amee modernisation nee na du kenn ku dul ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye Big Pato tamit wax na ci lu mel ni ki noonu nee na Mbaye daal mba bàyyi la woon waaye tamit xarit la woon boo xam ne ni daal maanaam daal bu jaam boo xam ne daal bu ñu mënta wax la la ñu seqoon ak moom la maanaam ci foo xam ne tegoon na leen fa ci wàllug doomoo ak xaritoo buñ fa jógee dem les arènes les arènes ñëwaat na ci mbiru Mbaye Gueye ba tey daal mel ni ki yëglikaay yi ba tey bàyyeegunu mbir mooma xëy nu woon ci xëtam mu njëkk foto woo xam ne Gris Bordeaux ca ne Tapha Gueye ak Ibrahima Mbaye yëglikaay ba nag la mu xëy tey samp ko ab laaj moo di li nga xam ne moom la fi Mbaye bàyyi ci ay ndono ñan ñoo ko war a taxawee face nu ñuy def ba sàmm lu mel ni ki noonu loolu la yëglikaay bi xëy tey di ko sampo laaj am na ñoo xam ne nag tu nañ ca muy Bekaay Mbay Ippo Ngaari ak Alaaji Ngañ Jaañ ka nga xam ne nii nag moom moo di Ippo Ngaari la la mu xëy xamle daal ne na Tafa Gueye lay waxal nee na ko Tafa Gueye moo war a teg micro yi te ñëw nag jël écrit fas maanaam taxawu ko def na magam defoon fexe ba écrit bi yegg fa nga xam ne nii fa la war a yegg ndax daa jàpp ne ni Mbay Gueye warta réer tey suba waxi noppi moom ngay bàyyi te ñëw fexe jàpp écrit bi yóbbu ko foo xam ne fu sore sore sore sore la ngañ jaañ moom la mu gis ne na kii di kati jóob daal jàpp na ne daal mën na faa andi lu bees jàpp na ne kati maanaam buñ ko toppee ba ca biir moom boo bëggee dëgg-dëgg mën naa yeesalaat la nga xam ne moo di ndondoy may gi ya teg ko ci aw yoon bekaay mbay tamit la mu xëy xam ne daal nee na maanaam jàpp na ne moom daal mu ngi am yaakaar ne gars yi mbir ma duñ ko bàyyi mu naax saay boo bëggee dëgg-dëgg daal moom la mu gis mooy jàpp na ne gars yi daal dinañu fexe ba mbir ma maanaam ñu sàmm ko mel ni ki tey nan leen ko waxee woon rek boobu tamit ca yëglikaay bi nga xam ne nii moo di leesaren tamit mel ni monde de la bi tamit ñëpp demoon nañu daal rendre hommage ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye yëglikaay bi xëy na tey dikkaatal ñu ci ay photo wan ñu Modou Lo nga xam ne mu nga toog ànd ak président Khadim Gadiaga ak ka nga xam ne moo di Ibou Laye itam mu nga xëy daal di wax ca ka nga xam ne nii moom moo di Mbaye Guèye moom Modou daal mu ngay ñaanal ka nga xam ne moo di Mbaye Guèye jàpp na tamit maanaam nit la koo xam ne nii daal Modou Lo ne na Mbaye Guèye monument la boo xam ne nii moom la ñu ñàkk tey nee na monument bu mag a mag a mag moo daanu moom la ñu ñàkk boo ma jë tamit wax na ca champion wu mbuur ba nee mbay Mbaye daal dafa mérito sax maanaam hommage boo xam ne bu rëy rëy la boo xam ne waran ka kaa defal ka nga xam ne Mouride Tafage ji rak ja tamit mu ngay wax ay ndénkaane yoo xam ne mag ja waxoon na ko ko jëmale ko ci mbër mi nga xam ne moo di Modou Lo Tafage moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu mel ni ki daal démb kon soo bëggee dégg-dégg daal gaa ya delloo nañu Mbaye Guèye la xam ne moo di njukkal mel ni ki bu nu continuer nag jóge ca loola ñëw ca la nga xam ne moo di làmb ja am na mbër moo xam ne nii moom wala boog dañuy dellu fa nga xam ne moo di sunu làmb kan fay fekki wala les arènes boog ka nga xam ne moo di agogo moom bokk ci association ba nga xam ne Gris Bordeaux moo ko jiite moom daal moo xëy di wax aw naqaram agogo nag la mu xëy di xamle wala xër ka mu xëy di dal ci kawam moo di Gris Bordeaux ma leen jiite la jàpp na daal moom amul benn njariñ boo xamal amal na ko association bi ndax agogo ne na dañ koo bëgg a génn loolu mën ta nekk tey suba waxi noppi ndax ne na lañ koy toppe mooy dañ ko ne dangaa bokk ci ñaari association te loolu mënta ne moo tax nag agogo ne na du ko bàyyi mu sedd xëy na daal wax lu leer ne na teyit am na loo xam ne moo ko leeralal boppam de moom agogo wala boog moo ko wax nee na maanaam fond yaa nga xam ne moom la mbëri dajale woon doon ko yóbbu ci wàllum korona ba ne na Gris Bordeaux defu ca dara ne na lépp boo xoolee Modou Lo ak Yékini ñoo ko lijjanti maanaam fexe ba coordonné ko ba mbir ya am moo tax agogo daal jàpp na ka nga xam ne moo di Gris kese ne na même daje ba ñu amaloon ca seeka caa ne du Gris Bordeaux ko def de ne na ka ko def du kenn ko dul Balla Gaye ak tamit ndimbalal ka nga xam ne moo di Abdou Aziz Aly Ndiaye waaye bu dee Gris Bordeaux la agogo jàpp na loo xam ne Gris daal defal na ko association bi loolu nag du sama ay wax waxi ka nga xam ne nii moom moo di agogo la yëglikaay bi xëy na tey dikkal ñu ci lu mel ni ki noon buñ fa dellu buñ fa jóge waate dañuy puusaat dikkaat ci fa nga xam ne moo di sunu làmb mel ni ki nag ñoo mbër yooyu nga xam ne ñoom ñooy association des jeunes lutteurs daal yëglikaay bi xëy na ñu xamal ne daal boo bëggee dégg dëgg daal ñoom ah maanaam la ñu nar daal wala ñu jàpp daal maanaam bu fekkente ne làmb ji moom ut na ci ab solution wala am pexe ñoom la ñu gis daal mooy wàcc ci mbedd mi defante ko loolu la ñu gis waaye daa mel ni daal saison booba ñuy bëgg ñu ubbiwaat ko wala ñu jàpp ko boo bëggee dégg dëgg moom bu ñu ñëwee xaar ba mois de novembre ndax nag yëglikaay bi di suñu lamb mu ngi nuy xamalaat daal maanaam saison ba moom boo bëggee dégg-dégg jeex na la ko waral mooy flambe wu covid 19 ba maanaam na kaay di yokkoo yemuñu ca taw ba tamit fi mu nekk nii ku ne xam ne ne ubbi na te itam daa mel ni kon tëgg tama ak xesanu mënula la ànd waaye leneen loo xam ne dan koy jeexale mooy la nga xam ne moom la ñu yëglekaay bi xëy tey andil ñu ko muy ay ancien gloire yoo xam ne nekk nañ fi marqué seen apprenti ci làmb bokk na ci ndem si yàlla Alioune Seye Tubaabu Joor mbay Guèye assurance Malick job Balla gay 1 Boy Bambara Daouda Fall Fallay Balde ka nga xam ne moo di Mbaye Diop Mor Fadam Njaga Sarr ak Pape Kane ñii ñëpp ku ne xam na ne lambi réew mi bari na luñ ci def tey itam nag wuyu ju nañ seen borom moo tax ñu ngi leen di ñaanal yàlla na leen yàlla jéggal te xare leen aljana ñoo bépp doomu aadama bu ñu fekk ci suuf wala bu leen fa fekk jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay yi loolu la ñu ñu xëy indil tey macha allah muy lu am am solo waaye comme li ñuy wax rek dañuy wax balaa ñuy sori inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun encore une fois maanaam ci sunu borom leen jóge te ci leen ñuy dellu maanaam loolu waxi sunu borom la parce que li ko waral ku ne xam na ne tey ah, ñaar ñoo xam ne ay nit yi diine lañ di ay xalif généraux ñoo fi bàyyeekoo muy xalif général bi nga xam ne moom moo nekkoon fi nga xam ne moo di ci Yoff Laayeen nekkoon sëriñ Abdoulaye Thiaw Laye wuyu ji na boromam depuis biig ak keneen koo xam ne tamit wuy ji na boromam muy xalif généralu Ceneba Seck di Serigne Abdourahim Seck yaakaar naa ne ak ki nga xam ne moo di Serigne Abdoulaye Thiaw Laye muy yoof ak cene ba ni kon loolu ci lislaam bi la dal te defe naa ne loolu su amee ci réew mi tam dina nekk loo xam ne tiis lay doon kon ñu ciy profito di jaale waa ahlu laayeen di jaale tamit waa cene ba mais di jaal tamit Sénégal yëpp rawatina jullit yi parce que tamit réew mi ñun ñoo ko bokk ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi di ñaan yàlla ñooñu yàlla na leen yàlla xaare aljana taaf ñu ci seen barke parce que tamit seen taxawaay ci lislaam moom defe naa ku ne gis na ko nga mbooloo di leen jiite di leen teg ci saatal mustaqim ba yàlla ñëw tey loolu moo lay wan ne fii moom ah lañ ñuy wax rek moo fi nekk baax dem bon dem kon yàlla nañu yàlla xiir ci mbaax ndax defe naa boo xëyee tey ñu leen Serigne Abdoulaye Thiaw laay xalif général de Layènes dee na eh, wala astaghfirullah wuy ji na borom maa ngi jéglu ci kàddu boobu ñu waxaat la ko ci ka nga xam ne moom moo di ah xalif général lu Thiénaba yaakaar naa kon ñun ñi nga xam ne ay simple kii lañ nga xam ne rek chaque jour ñu ngi ci ay affaires yoo xam ne mooy loolu war nañu xoolaat suñu bopp di ci profité di ko jàll ñi nga xam ne nii ñoom la ñu bokkal làmb ji tamit te bokk ci kër yooyu bokk na ci ku mel ni Baye Mandione ku ko ku ne xam na ko ci ahlu laayen Baye Mandione bu caaru yi di ko ko jàll di ko jàll bépp doomaaram aadama boo wala bépp nit bi nga xam ne yaa ngi ci lamb te bokk ci kër googu waaye di ko jàll waa lamb yëpp ndax buñ ko jàllee bàyyi mu ñoon jàll nañ ko ko jàll tamit maam libaas Lo di petit frère Modou Lo nekk ca moom tamit di taalibi Laayeen ñu ngi koy jaale bu baax a baax xalifa bi Serigne Abdoulaye Thiaw Laye di ko ko jàll di ñaan yàlla ñi leen fi desal yal na leen yàlla may fan bu gudd ak wér gu ba ñu continuer mission bi waaye tamit noonu la demee ba cene ba jaalee ki nga xam ne moo di guy gi ndax guy gi ku ne xam ne ci famille boobu la bokk ñu koy jaal xalifa généralu Thiénaba boobu nga xam ne bàyyeekoo na fi nam tamit ah ñu koy jaal guy gi di ji ko jaal képp koo xam ne ni tamit doomu ba nga parce que tamit olof na na ah ngoon la ko tool ñooy dëkk kon yaakaar naa ne te ñoo ñëpp ci askanu maanaam ci làmb lañ bokk ñun ak ñoom ñoo bokk milieu bi te ñoo ñoo nekk guy gi ku ne xam na ne eh, lu mu wax ne Thiénaba ndax itam olof ne la nga doon soo ko bañee dafa fekk nga gën caa ñaaw bàyyi ma ñoo nit kazalika naka noonu ci yoof loolu wala ci laayeen loolu moo lay wan nekkoon Sénégal noonu la demee waaye di ñaan yàlla xalifa yi fi des tamit yal na yàlla defal fan gudd ak wér-gu-yaram di ci jiital Serigne Mountakha Mbacké Serigne Babacar Sy Mansour ñoom ñëpp ak xalifa yi des yëpp ak nga xam ne ñoom ñoo jël xilaafa yi ci ñi fi jóge tamit di li nit ñi que ni suba moom mooy journée xasaayit bi fa nga xam ne moo di ca tubaa Mbacké di la onze ah mercredi 11 Serigne Mountakha woote ko ngir lan ngir ñu ñaan buñ ko waxee nag maanaam liñ ci jub lim ci jublu ci sama xalaat te itam yaakaar naa ne noonu la demee mooy ñaan la bëgg ñu def ko te xasida yi ki ka daan bind mu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul li mu ci doon jublu moo naan tagg yonente bi sallallahu alayhi wa ak ñaan ci boroomam ah yërmande doomu aadama yi ak seenu njéggal yu mel ni ki noonu la ci doon la moo ko taxoon jóg te itam loola fa nekkoon ba tey mu nga fa kon ab sëtam bu ñëwee tey woote waat loolu yàlla na yàlla def suba ñaan yi ñu cay ñaan yépp yàlla nangu ko te bu ko nangoo lépp luy musiba ak balaa mu dàqal ñu ko barke bi sallallahu alayhi wa sallam bu buñ fa jógee nag dañuy ñëw ak yéen ci xët bu njëkk yëglikaay bi di sunu làmb gis ngeen tey sunu làmb xëtam mu njëkk lam ca def ki ngeen gis noonu mu taxaw moo di Mbaye Guèye macha allah takk ay jaajam ah gis nga macha allah gis nga àddina nit ni muy soppeekoo ah xam nga ne kii boo gisee photo bii nga xam ne kii bi muy toll si jamonoom boo ko gisee di nga gis un grand champion di nga gis un vrai athlète mais gis nga lu tëgg tas la olof wax. di nga gisaat ci beneen côté bi beneen foto boo xam ne moo ak Robert Diouf ñoom ñaar a taxaw boo xoolee Mbaye Guèye moom mu féete à gauche Robert nekk à droite Robert mooy papa ñoom Mamadi Ndiaye hmm, ak ñoom Mbagnick Ndiaye kooku mooy Robert ngeen xam ko moom itam di champion bu mag dëkk Joal te ñoom ñaar defe naan am nañ bis boo xam ne yaakaar naa fii ci stade Iba Mar Diop ci nit ñu ko nettali bis boobu kenn dootu ko fàtte ci ci anaanu làmb mbay Gueye moomu moom ngeen di gis noonu mook Robert euh, moom Mbaye Gueye nag li tax yëglikaay bi dikkaat ci moom tey Iba Kane andiwaat waxtaan mu seqoon ak moom ça veut dire que Mbaye Gueye moom moo amoon waxtaan wu yaatu ak waa sunu làmb di woo ñëw ne ci carrière ci la nga xam ne nii maanaam popularité bi mu amoon ba jàpp na ne sax popularité am bi mu fi mu yeggoon kii di Siteu wala muy Modou Lo wala Balla Gaye ëppoon na leen popularité yaa ngi dégg te loolu nit ñi nettali nañ ñu ko ndax li tax mooy ko nga xam ne bu daan jàll président di jàll ñu ne président taxawal ba Mbaye Guèye jàll kon kooku siiwoon na yemu ca ñëw na ci li nga xam ne moom la jot bëri ci ay combat mu toll ci entre 70 ba 80 combat yoo xam ne bëri na ko moom Mbaye Guèye waaye tamit siiwaayam googu nga xam ne siiwoon na ko ba ñu bari daan ko jaawale sax ak ginne boo xoolee am na ñu wax bari dañ doon wax ne moom nee na maanaam dañ ko doon jaawale ak jinne ndax ni mu meloon ci popularité ci nit ñu ko bëgg nit ñu koy topp yaa ngi dégg lool nag li koy waral ci nit souvent mooy bu nekkee ci mbir da cay def fulla ak fayda jëmbat sa jomam xam naa loolu moo taxoon ñu ko daan topp daan ko topp yaa ngi dégg mbay gi ñëw na ci lool ak itam yoo xam ne waxoon nañ ko ko ay kilifa waxoon nañ ko ko benn euh, sëriñu malien bu nekkoon ci ak itam lu nga xam ne sëriñ Fall waxoon na ko ko ci moom ci côté popularité am sëriñ Fallu Mbàkke ah yàlla na yàlla yokk leen tax ñu si barkeem di ñaal di a xalifaam sëriñ Abo Mbàkke mu yàgg fi loolu te wér ba tey bu ñu continuer ah ci lu mel ni ki moom mbiru mbay gi moom rek di ngeen gis Gris Bordeaux tamit maanaam ñëw na di wax gis nga giri mu ngi noonu taxaw ah ah yaa ngi koy gis euh, mbay gay tiim ko di ko sotti butéel giri di wax ka ni mbay gay ni mu ko doon galvaniser avant ay combat giri tamit mu mel ni moom ñàkkuk wala demuk mbay gay dina ko manqué effectivement parce que yaakaar naa ne giri Bordeaux ku ne gis na li mujj ci ay combat lépp mbay gay day ñëw taxaw taxawaay boo xam ne bu am am solo la moo tax giri xëy nag seq waxtaan wu yaatu ak yëglikaay bi ah di wax digganteem ak Mbaye Guèye ni mu ko nar a manqué ba ñëw si ci digganteem ak Tyson bi ñuy bëri gis na ne mbay Mbaye Guèye ah daf ko xamal ne ko daal tey moom boo ñàkkee combat bi mooy ci stade bi fi laay faatoo fi laay yem ndax xa googu gàcce ko attan kon fexeel ba def le tout pour gagner combat bi Gris moo xëy tey wax lu mel ni ki loolu nag moo lay wan ne maanaam kooku athlète bu mu ne sa côté mu ngi lay yokk jom di la yokk courage lu parce que loolu bi ko koy wax la may jàpp mooy li mu jublu mooy bëgg na gir bàyyi xel ci combat bi. xam ne da koo war a gañe loolu moo taxoon te gis nga bis boobu Gris dafa daan Mohamed Ndao Tyson te combat ba dafa bari woon coow lool waaye làmb ak coow ñoo ànd waaye waa lamb tamit dem nañ démb këram rendre ko hommage yaa ngi dégg waa làmb dem nañ rendre ko hommage mu mel ni kii euh, Matar Ba mu nga foon ministre des sports ah yóbbu fa un million yëglikaay bi wax nañu ko ñoom Bira Sène ñoom ñëpp mbër yi ñoom Modou ñu nga foon mu nekk loo xam ne daal ah lu ama am solo la loolu tamit defe naa ne mooy li nga xam ne nii moom moo waram parce que ci olof ne na ku bokku ci gétt gi naan ci meew mi loolu olof Njaay moo xëy di ko léeb euh, bu nu continuer ba tey ñëw ci les arènes les arènes tamit dikkal nañu ci maam moom xëy laaj bi mu xëy samp tey ci photo moom munu wan ngeen gis Gris Bordeaux taxaw à droite Tafa Gueye taxaw Ibrahima Mbaye taxaw euh, yëglikaay bi nee na maanaam li Mbaye Gueye bàyyi nan la ñuy def pour sàmm ko loolu la xëy laaj moom les arènes laaj boobu nag bu jarat bàyyi xel la et fu jarat taxaw seetlu la parce que nag dama naan moom li ko waroon def na ko ndax mbay Guèye boo nee Gris Bordeaux ne Zallo ne Rock Mbalax ne Ousa Sow ne Papa Sow hmm? ba ci ñoom Forza ñoom Lagros ñoom ñëpp maanaam bu ma leen doon lim duñ duñ fi jóge ak ñoo xam ne ñoo magoon sax ñooñu te ñii ma lay wax ñëpp ak ñoo xam ne tey ñëpp maanaam ay kilifa lañ tey ñenn ñi bëri nañ ba bàyyi bëri ñenn ñaa ngi fi di dund ñenn yàlla def ñu wuyu seen borom ku mel ni tubaabu joor yàlla na ko yàlla yërëm ah Amadou Kati Diop maanaam buñ leen doon lim ñi nga xam ne mbay gi ñoo tax ñu nekk mbërum làmb dafa bari kon defe naa kooku héritage bi mu bàyyi bu yaatoo yaatu la lay tax ñu sàmm ko nag waxees na ci loolu yëglikaay bi laaj Ippo Ngaari moom la mu xam ne nag dafaa génn teg micro yi te ñëw taxawu écrit gis daa jàpp ne Tafa moom war nag ñëw léegi nag takk ndiggam taxaw écrit bi ji nga Njaañ tamit wax na ci jàpp na ne moom ak Kati Diop yaakaar mën na juddu ah mën na am yaakaar pour mbir ma Kati téye ko normal parce que tamit yàgg na ak Mbaye Gueye yaakaar naa ne ku ne xam na ne jamono yi Tafa Gueye di toj dëgg dëgg dëgg dëgg Kati moo nekkoon entraîneur bi ba après ay malentendu am mu dem créer écrit Ndakaaru mais gis nga lu olof naan bu yoon jeexul waxasul du jeex fexe nañ yàlla doxaat na ñuy dox di dox ba déggu amaat ba Kati ñëw te yore écrit ba yaa ngi dégg kon defe naa loolu ngañ dañ wax it wares na cee mën a am yaakaar yaa ngi dégg keneen koo xam ne tamit wax na ci mbir mu mel noonu muy bekkaay Mbaye suñu papa Bekaay moom it xam na ne daal am na yaakaar ne daal gars yi du ñu mujj puso bi mu réer ah buñ ko defee def lu ca bokkul de waaw loolu moom mooy li am buñ ko defee rek def lu ca bokkul euh, bu ñu continuer ba tey ci mbirum mbéy gi moom Modou Lo mu ngi xëy tey di wax ne eh, daal làmb moom moom ñàkk benn monument bu rëy a rëy Modou Lo gis nañ ko ci ay photo moom itam démb demoon na jaale ji ba ma ja tamit di xamle ne Mbaye Gueye mérito na ñu rendre ko hommage effectivement wax na dëgg te xam naa ne loolu bés dina ñëw waa làmb ko ndax nag li Xaadim Gadiaga wax moo am rek maanaam révolutionnaire làmb la Mbaye Gueye def te loolu mooy li am ah, yàlla na ko yàlla jéggal te xare ko aljana muy loo xam ne tamit vraiment euh, lu am am solo la Tafa Gueye tamit wax na ci li ko Mbaye Gueye waxoon loo xam ne secret la gis nga mu ngi noonu yëglikaay bi ñëwoon ñu ci ci Modou nag la ko ko wax loolu lu mu ko dénkoon waaw loolu nag euh, wax xam naa waxtaanu biir nekk la woon waaw euh, ba tey bu nu continuer parce que balaa may ñëw tey si li nga xam ne nii moom moo jëm ci wàllum kii bi damay ñëwaat tamit ci vraiment yëglikaay bi di sunu lamb dama fay delluwaat li tax ma fay delluwaat maa mooy ni mu rendre hommage tey ancien gloire yi war ñu seen ay photo gis ngeen ah ñoom Aline Sey Tubaabu Joor Mbay Géy ah assurance Malick Diop booy Bambara ñoom ñëpp ndeysaan ah Daouda Fall Falaye Balde ñoom ñëpp ndeysaan Mor Faram ah gis nga ñi ñi ñu leen won ci affice bi yëpp ku ci ne Père Balla Gaye wax dëgg yàlla bi nga ciy toll def nga li nga war a def te itam tax nga tey ay ni tedd ci lam ba tabax ay kër yore ay njaboot kon ñii jar nañoo ñaanal yàlla yërëm leen xare leen aljana waaye tamit jar nañu di fàttaleku saa su ne tey école Mor Fadam guy geeg ña fa ne am nañu aw sas école Papa ñoom mar la ña am nañu aw sas yaa ngi dégg ah? Ama Baldé waxaale wuñu ko Balla gay 2 waxaale wuñ ko ndax moom itam ku ko xam xam ne école de Balla Gaye fële fële te père Balla Gaye Ndour moo ko formé te ñoom ñëpp génn nañu àddina tey ñoom ñi fi des nag di ay xale kon yéen ah mu leen mu jëpp sa bi mu réer caat bu booy bambara école di booy bambara tamit gis ngeen moom moo nekk foofa ah Daouda Fall écurie Waalo assurance malik Diop moo lay wan ne daal àddina dara wéyul moo tax bu ñu rek rafetal soow mi duggee ko marché waaw moo gën parce que dara du wéy bu nu continuer ba tey ci sunu làmb boobu bu ma dikkaat li tax ma fay desaat mooy ka nga xam ne maanaam wàllum euh, saison bi nga xam ne ni daal euh, euh, mbër yu ndaw yi wala boog association bi nga xam ne moom la mobile jiite daal ñoom la ñu xëy xam ne daal mooy ah ñu ngay def ay menaces daal ci wàcc ci mbedd mi nag la ñu nar mu nga doon ca kaw ñu wan ñu ko loolu nag lu doy waar la wàcc mbedd mi moom wóorul dama loolu est-ce que solution la wàcc ci mbedd man pour man du solution waxtaan moo gën a wóor parce que xeex moom faju dara pour man nit da ngay waxe ak sa xel di waxe ak sa xalaat et puis tamit la ngay wax nga fexe muy nekk dëgg di doon réalité di doon loo gëm nit ki loo gëmul bu ko wax lu newul bu ko wax bu la ko dara jaral parce que bés boo ko defee bés day ñëw loola feeñ mu nekkaat gàcce ci yow te loolu doomu aadama ju ne war na ko am moytu kon ñu digg du ñu digal kenn ki mu mën a doon ngay wàcc ci mbedd di def yenn yu nga xam ne day jur ëllëg ay yàq ndax li fi amoon ci mois de mars bi passé yaakaar naa ne loolu kenn rafetlu wu ko ay yàq toj alali jaamur ay jël loolu moom encore une fois nañ ko dépassé man nañu nag ku war a dox sa manifestation am nga droit bind ko ci yoon ñu jox la ko nga def sa manifestation ñu encadré la nga wax la la naqari loolu defe naa mooy li citoyen war a def mais pas def lu nga xam ne day dem di tooñ ay jàmbur yoo xam ne mbir ma intéressé wu leen loolu nañ ko moytu encore une fois ñu sàmm suñu réew xam ne Sénégal ñoo ko moom saison bi nag daa mel ni tëj na yëglikaay bi ne la la déjà terminé la saison waaw parce que nag boo xoolee falambewu Covid ba ak itam taw ba fi mu nekk nii kon bu ñëboo xaar ma daal bu mois de novembre lool la suñu làmb xëy jeexale kon foofu la ñuy jeexale affaire di leen jox dig suba incha allahu rabbi di ballu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm hmm? di nuyu Bunaama Maroc maa ngi koy nuyu borom oto yi Bunaama maa ngi lay bëgg bu baax a baax baax baax di nuyu sama soppe yëpp ñoom Asi Diagne depuis Nouakchott tuuti yaay Sarr Espagne bu ma ko fàtte maam Libaas Lo maa ngi lay nuyu yow tamit vraiment di la ñaanal jàmm ah, moom su ma soppe la nuyu ñoom jibi Dia Séville ca it euh, Espagne di nuyu képp ki nga xam ne daal yaa ngi ñuy suivre à travers Equivox TV di ñaanal ñëpp jàmm